ngi koy préparé préparé bu yam nii rek yaa ma gën xam daal waaw ah bu yam nii rek xam nga ñun moom mooy lool dañuy jàppale suñu mbokk yi rek te ñun tamit ñu ngi koy sentir bu baax nax suñu maire bi yaa ma gën a xam ndax mu ngi ñuy defaral ñuy sentir luñ daawul sentir si Yoff daal yaa ma gën a xam daal comprendre nga rek ay wax année 2020 bi damay ñaan yàlla rek mu wisal ñu si jàmm ak salam yaa ma gën xam allo Dakar TV dama bëgg seen kii bi dem mu dem ba ñuy tudd si dëkk bi comprendre mu mel ni kon ñeneen yaa ma gën xam daal ñaanu ñu yàlla jàmm bàyyi ñu fi ñun ñëpp. waaw fin d'année bi waaw comme comme ni ko ñëpp di gisee rek avant tout ñu ngi ñaanal waaw sénégalais yëpp di wax yàlla nañ ko fekkee déwén yu bëri ku ci nekk aussi lu nga doon liggéey ak li ngay séntu. comme ni ñu koy ñaanee chaque année mu gën a yokk ko aussi nag euh, comme année bii lañ jógee yëpp année 2019 bi gis nañ ni dëkk bi métti woon na trop gars ñu ngi nii di jooy boobu léegi ñu ngi yokk ay courant tout ça ñu ngi wax xam tamit ay école dina ñëw ak ñu ngi naan ñu ngi ñaan daal ñun ñëpp que Sénégal gën a jëm kanam que année bi année yu ñu weesu nii bii di ñëw mu gën gën a gën en plus mu gën di yokk quoi que 2020 mu mu doon euh, année bu nga xam ne mooy doon année de waaw nu mu koy préparé nag moom waaw xam naa ne du yomb quoi. gars yi ñu ngi waajal ginaar yi waaw ñeneen ñu waajal xam nga waaw famille yi moom ñu ngi defar ba mu baax comme dab xale góor yi tamit nañ génne affaire di joxe xam nga bu ñu calculer dara quoi. que la fête soit belle quoi. waa ci bi maanaam man man moom perso lu may ñaan moom xaalis bu bëri laay ñaan Sénégal xiif bi jugee fi maanaam xéwal yi gën a yokku ñun tam suñu environnement bi muy gën a sell di dem rek. ci kaw ci kanam quoi incha allah. allo Dakar TV waa gis naa seen job bu ngeen di def aussi vous êtes des frères ñu ngi leen di ñaanal aussi yéen moom ci kaw ci kanam ngeen gën a yokk dem ba nga xam ne télé bi day doon télé wu jeune quoi doon la télé de la jeunesse quoi allah. ah fin bi ñu ngi nii di ka waajal waajib bu yam rek yaa ma a xam nekk si préparation yi tuuti nii rek xam nga rek. muna man koy pare pare bu yam ni rek ah moy lol da xam nga dekk bi mom tanay dafa amul khalis ta fet mom laaj na lu ki tuuti ah 2020 mom damay ñaan rek yalla may ñu guddu fan do rew mi don rew mu naataande noonu lañ koy waxe ah après yalla defal sutura nit ñi comprendre nga bu baax loolu daal man man yow ma wax daal allo Dakar bi man maa ngi maa ngi dégg seen job si kii bi internet bi dama leen di ñaanal daal yàlla defal leen jàmm ju bari yokk seen ay seen ay activité yëpp daal loo bëgg rek yàlla defal leen ko si barke Mame Mbaye Laye. waaw fête de l'année fête de l'année mooy saa maa ngi sant yàlla bu baax a baax. mais eh, yàlla ñu ñaan ñu nekk ci kanam ñu gën a kii quoi. ah fête bi fête bi kay maa ngi koy préparé ma ngi koy préparé bu baax a baax ah <laughs> fii moom kay diggante rek diggante ji xaalis xam nga boobu ah moom kay dëkk bi moom dafa doy waaru de. fin bi xanaa ni ko Sénégalais yëpp gisee quoi mbégte rek ah écho bi nar a ñëw nii xam nga changement bi. ah yeneen quoi Sénégal moom feeñ bi moom ñaan nañ si yàlla yokkute quoi ñaan nañ yàlla jàmm sax Sénégal xam nga xam nga balaa fin d'année bi tamit xam nga ma def farata quoi takk soxna xam nga mooy loolu il de temps quoi <laughs> waaw man nag man nag man nag du ma préparé noonu fête quoi comme décembre bi nii dañuy dem si sëñ Mamour quoi Mamour Insa moo oote quoi fa la ñuy dem noonu la ñuy dundee décembre bi quoi mais nag maa soxna si ñooy ma soxna si ñooy ànd de dem dem dem dem dem dem dem duñu jik waaw waaw Zahir ak baatin moom ñoo ànd quoi waaw waaw alors Dakar TV waaw waaw waaw ñu ngi koy nice franchement quoi geste bu nice alors Dakar TV xam nga ñëw ak doole nii ay jeunes ñoo ko taxawal xam nga franchement quoi ñu ngi gis sama vie si net bi macha allah quoi ndam rek incha allah. waaw fête bi moom daanaka nekkul suñu fête mais suñu feetu dëkkandoo yi chrétien la daal. kon mom ma leena ñaanal fetu jamm dal waaw wa 31 bi mom liñ ngay préparer kon d'habitude rek waaw nek suñu kër xam nga waaw a famille bi waaw xam nga parce que ak famille bi dal waaw waaw da leen ñaanal jamm da leen wan seen liggéey rafet na waaw da leen ñaanal yàlla dal bu dem ba ci kanam ak kanam xamante ni waaw tele lay doon dal inshallah bi fin d'année bi euh, alhamdulilah comme fekkee nañ ko ci jàmm ak salaam rek moom solo parce que soo xoolee rek am na ñoo xamante ne fekkewuñu ko ñun fête bi yëpp deuxième la ñu ñuy c'est normal sax parce que fin d'année la quoi mais nañ ñaan yàlla comme ni ko fekkee rek déwén ñu fekkiwaat ko noonu. oui alhamdulilah laa moom presque maa ngi koy pare na depuis Noël ba tey maa ngi feetu <laughs> alhamdulilah daal yàlla ñu yàlla yóbbu jàmm 31 bi ba ak bi vraiment. kontaan nañ te maa ngi ñaanal gars yi yàlla may ci réew mi jàmm ak salaam ñëpp fekk yàlla may ñu gudd fan may dëkk bi jàmm accident yi yàlla musal ñu ci musal ci mboolem julli loolu rek moo ñu metti ci en 2019 bi mais à part ça tout est bien. alors Dakar TV moom mention spéciale man yàgg naa liggéey ak ñoom euh, depuis presque déjà 4 ans waaw mu ma seef parti vraiment maa ngi lay nuyu di la seet c'est lii la prochaine chanson <laughs> sa élément. waaw fay na mi jàmm rek comme. ñëw nañu fekke ko ci jàmm ak salaam dañuy ñaan yàlla at bii di ñëw yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu teranga mais ñu tal ak fekke 2020 bi maa ngi ciy ñaan sutura ak xéewal di ñaanal sama jullitu sama mbokk yi ñi nga xam ne nii ñoo ma jàppale ci 2019 bi ñi ma soutenir ak ñi may jàppalee guddi ak bëccëg maa ngi leen di ñaanal jàmm ñoom tamit yàlla dafa leen jàmm ak sutura ah Allo Dakar moom mu ngi nii moom moom moom dafa ala daw me moom tax na moom léegi jamono bi léegi dara làqootul franchement parler lépp looy def te bëggu siiw ñëwal Allo Dakar franchement ñu ngi leen di sant di leen remercier yàlla dafa leen jàmm ak sutura